mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi am tey benn gan bu ñu ñëw euh, seet si di Babacar Dieng nekk euh, rappeur mu am loo xam ni daf ko dund ci biir réew mi ak ay takk der euh, xam naa rekk dinañ yaatal léegi ci waxtaan Babacar ñu ngi lay nuyu. waa ñu lay sant waa maa ngi nuyu seen seen kii Pape Maguette bon sama tur dëgg-dëgg Serigne Babacar Dieng la. Mhm. je suis rappeur journaliste bon. mën nañ wax sax bañ a wax journaliste nañ wax contributeur. contributeur waaw mm. la presse en ligne. Mm. boo tapé sëñ Babacar neex wala sur Google. Mm. di nga gis article yu nekk. di ma ci di nga gis loo gis daal Serigne Babacar yi xamal ne maa ko bind. Mm-hmm. bon par à tous modestie nag mais lu tax ma ñëw fii. voilà mooy mooy li tax nga ñëw fii tey. dafa mel ni ki dafa am loo xam ni dund nga ko. ak yoon. léegi mën nga ñu wax li nga xam ne dund nga ko te mu naqari la fan la commencé. ak coow li naka la demee. ok bon euh, li ma fi ma commencé mën naa wax ne police. Hmm. ci police ñoo ma ko teg waa police. police bi nag li may wax nii dafa toll ci contexte bu nekk moo tax may wax bi mais hmm. am na yu ko jiitu. Hmm. yooyu noonu bu ma ko waxee damay buree nit ñi. mais damay damay yaakaar ne man bii bu ma ko waxee rek doy na pour indi yoo xam ne ñoo sabab ba ba ba ñu agsi fii. parce que contexte bi mooy Cheikh Niass. Cheikh Niass gaañu la. ci biir prison euh, Aba euh, Babacar Aba Mbay Mbay bu nekk parti socialiste salis keroog invité nañ ko je peux citer télé bi. Mhm, jàkkaarloo. Mhm. Euh, mu wax benn ba wax ne jamais mu ne c'est resté parce que dañ ko jàpp tout nu ñu devant des inconnus. Mhm. billaahi wallaahi taalaay. dama jooy. te billaahi wallaahi taalaay. li may wax nii. su fekkee amul yàlla naa torox. expliquer ñu sa problème sama problème. Mhm. man ñu ma xamul man maay magu rakku jee mosu mhm. ñu bëri xam nañ ko Dakar. Mhm. man maay rakku jee environnement professeur Lamine Gueye la jàngale ba retraite. cerise sur le sama mag gendarme la aate Diallo muy Ahmed Tidiane Diallo. fële ca camp. Samba Jéeri Diallo. gis nga bu fekkoon mu ngi dund tey. billaahi du ma ñëw Sénégal wala après laa ñëw Sénégal. parce que ba may jugee fële ci ca ca ca police ba dama leen wax ne la tey jii coow li moom c'est la police contre la gendarmerie. gis nga policier bu ma entendre dafa ne yow booy yow est-ce que wér nga est-ce que xam nga li ngay wax. léegi nga ñëwaat ci coow li lan la exactement. walla pour ñu comprendre ko. voilà coow li. Mhm. man euh, rappeur laa woon. rappeur laa woon ma génne man maa man maa génne sonw ñoo doon toog di naan ataaya bu Ismaïla Lo mhm. y a beaucoup de reprises mhm. man maa ci dàqale te Ismaïla Lo ci boppam moo ma ko wax mhm. billaahi wallaahi taalaay ma am ci fierté loolu am ci mu doon sama carte d'identité tey jii rappeur bu ma tasee rek su ma nee ko man maa def son reprise ñoo toog dinaa ataaya rek mu ne ah yee loolu rek carte la même bu fekkoon hip hop bu demoon ba deux mille vingt quatre deux mille quarante cinq sax bu ma maa defoon loolu rek man tàkk naa ba léegi da nga doon liggéey nga am ak. léegi police léegi ma ñàkk ma ñàkk lu ma génnee ay son. moo ma dugal ci gardiennage en 2006. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 bon je pense que 2014 wala 2015 2016. lan ma affecté Sénélec kii Sénélec Thiaré li may wax nag ñi ma war a tudd nan ma baal mais histoire boo ko raconté wul nu mu demee. damay damay damay damay nit ñi duñu comprendre mm. te ñooñu tamit bi dara tooñ ñu ma mais dañoo bokk ci histoire mm. dañoo bokk ci histoire te maa ngi jéggulu ci nu ma leen tuddee peut-être ñoom du leen neex mais su ma ko waxulee mm. man dama nekk ci presse en ligne fi mu ne nii toog sama sama rédaction di souffrir à chaque fois ñu jàpp Guy Marius Sagna dugal ko ci fourgon taman dugal nañu ci fourgon ci jaay doole léegi naka lañ la jaayee doole waaw léegi foofu laay expliquer. Mm. parce que nan ma baal rek il faut que may def ay ay ay transition pour ñu mm. comprendre. waaw il fut un temps gars yi dañu doon toj bus yi. dañu doon toj yi. waaw maître Moussa Diop. Mm. jëloon ay gros takkoon ay euh, euh, lakos yu ñuul. amoon logo Dakar dem dëkk bi. daan si Dakar dem dëkk bi daan nga gis trois à quatre personnes yu dugg. Euh, ñëw pour xëbal potentiel casseur assurer sécurité quoi waaw pour potentiel casseur yëpp. parce que gars yi dañu doon toj kii bi. léegi boo demee postu Thiaroye instant temps yi dafa nice. Mm. entrée bi bu njëkk ba mm. euh, waa Sénélec dañoo permettre tout au long du mur permettre kuy jaay dékki kuy jaay añ kuy jaay reer. Mm. Euh, kuy jaay café kuy jaay xawsa ñoom ñëpp ci mur bi. les jour boobu nag chauffeur Dakar Dem Dikk foofu dépôt la quoi dépôt Dakar Dem Dikk dañoo doon plaindre ne foofu dugg bi day metti ñu it plus de vingt cinq billaahi wallaahi taalaay plus de vingt cinq gros bras ñëw mili militaire ñëw jëlee leen fa. comme man dama amoon benn collègue bu ma doon liggéeyal kooku moo ma mag 60 lay am et quelque muy tudd Omar Dia maa ngi moom ñoo doon permuté mais moom dañ ko doon wax grand Dia mais comme man rappeur la xam nga rappeur calli calli bi nii cër bi la ko jox parce que mm-hmm. rappeur bu ñu yorul da da nga leen da leen di jox kii ak ak gardiennage bi xam nga rek nu yow yow yaa ngi gardé maa ngi gardé boobu maa ngi gardé ci Sénélec waaw bokkoo ak gros bras yi bokk ma groupe déedéet boobu ñëw dama ko fekkee moo tax ma lay expliqué nii mm. léegi jour boobu maa monté maa mm. nekkoon faction mm. léegi ñu ñu ñu ñu kii leen saa ñu ñëw laaj ma laaj ñu ma ñu ñëw ci portail Senelec parce que am na côté poste courant bi am na fu yaatu mm-hmm. ñu def ko genre luuma marché jeudi man maa ngi woon ci biir gis nga ak gardien yu may seetaan mën nañ seede loolu maanaam bëri na ay gardien yu nu dàq ay visu yu nu dàq parce que benn waay moo ñëw gaare foofu rek fay otom dem. inspecteur bi ñëw fekk ne gardien bi doon nelaw te pourtant gardien bi mënoon na dem tuuri ndox. mënoon na dem def benn besoin. ndékki añ reer ñu dàq ko ci noonu wala ñu jëlee ko foofu. Mhm. mais ba ma génnee gis loolu ma xam ne kon ñii dañ jàpp ne man muus laa. Mhm. moo tax du leen def dara parce que bu fekkoon ne billaay je suis sûr que bu doon Omar Dia la ñëw ne ko grand Dia ah dañoo dañoo jënd sunu sunu matériel ba pare ah dañoo nar a yàq sunu sunuy sunu sunu sunu war a jaay day day day seey. da dañuy nar a perte quoi kon doo ñu may fii ñu këloo-këloo jaay lu nu lu nu kii comme defuñu loolu ma génn attaqué ñëw comme bay aliment l'image de ku ku tànk ku chef ku ku gaynde quoi ñëw ne leen ay eh, jug leen fii nangam nangam nangam nangam nangam fekk am na koo xam ne ci ci làmb yi loolu la ma ko fàtte woon wax euh, kooku jarbaata Ablaye Wade la loolu nag li ma lay wax ni leeruma mais loolu na ma ko wax moom lan la woon ci gros bras yi la kooku raada de Sénélec la dama lay wax histoire am bu ndaw ñoom ñoo ma ko wax loolu nag c'est à vérifier. Ah. ñu ne ma Abdoulaye Wade ba mu ko wooyee pale hmm. dem na foofu mais ba mu ko laajee dafa ne ko mu may ko euh, paasu Italie. ba mu demee Italie dañ ko refoulé ba mu ñëwee xel bi Lambert. Hmm. léegi si la ba mu ba mu ba mu ba mu euh, nekkee nit si la commencé ñëw ci raa bi di def ay dilam bëgguma wax ay wax yu ñaaw quoi. Ah, def ay dilam yow mën nga ñu wax sa problème exactement rek. waaw léegi jour nga dem ba police. jour boobu nag. Hmm. moom ci boppam dafa am numéro suñu contrôleur. Mamadou Ba. léegi ba mu ñëwee jour boobu chef d' agence baa nga fa woo woowul sama benn supérieur agence Senelec yaa ngi foofu woowuñu benn supérieur yow koo xam ne mooy raa maanaam yow la fa la fa réer buñ koy seet bëgguma yàq deram buñ koy seet duñ ko ci génne mu woo Mamadou Mamadou Ba sëñ Babacar Dieng mu ngi ne Mamadou Ba jigee Senelec euh, Sicap Mbao jël taxi ñëw gaare yow boo ñëwee fekk say sa élément di xuloo di xeex doo ñëw taxaw ci wetam doole mais mu dem taxawee ne ci portam ne mais eh, sëñ Babacar Dieng fii comme son enfant. Mhm. te jour boobu amoon naa contentieux ak ak société bu ma doon lekk parce que je touchais cinquante cinq mille te yi amoon na koo xam ne un certain Konaté waroon ci bi dañu doon wax pour ñu yokkal ba ñu yokkee première vague deuxième vague troisième vague bi ci ñu arrêté Konaté boobu dama ko mere ba léegi parce que sinon. war woon ñëw di jël suma sama signature pour xeexee ma. d'accord comme nag. léegi nag ba ma woowee euh, Mamadou Ba ba mu dugg see dafa ñëw ne ma je sëñ Babacar Dieng fii ma dugg si ne ko Mamadou Ba yaay sama supérieur yaay sama mu ne ko waaw ah, man maay sa gardien ma ko waaw ah, ma ne ko bàyyi naa mu insisté ma ne ko damay nangam tànde bàyyi naa mu mu jaaxle mu woo Luque sunu ressources humaines hmm. mu ne ko allo Luque sëñ Babacar Dieng mu may ki saaga ma ne comme wax na saaga du ma ci delloo. Mm. mais préparé leen sama salaire maa ngi ñëw. génn dekkoon na jël tëndi bi xam nga def bambu laa quoi def lu ma mm. neex. Mm. le lendemain ma ñëw ñu ñu renseigné ma ne ma saaxo jarbaatu Ablaye Wade boobu moo ma boole. ma nekk de quoi ma mel. moom mooy kan ba may boole. ma rëbb ko nag comme sa salon. xool goos xool droite ci garage bi. ndax dafa am ay garage foofu rek gis ko muy calli calli di ñëw calli calli di ñëw. mu ba mu ba mu ba ma taxawee fixé ko xam na ne moom laay xaar. mu waaf léegi mu vérifié pour mu vérifié mu waaf ci café am na benn benn café buy jaay dadis xamu la tudd mu jaar jënd café café ma ñëw fekk ko fa jaw jaw sexe parce que dama gisee film ko xam naa euh, naka lay euh, tiitalee nit ak yooyu ma def nii. yëngal sama bëñ bët yi nii quoi ba si yàgg. ma ne ko yow mën ngay boole ma ne ko tey laa lay boole malaaka moom tey rek mu rek ba mu yóoxoo quelque trente minutes quinze minutes. mooy su keneen ku ma doon ku ma doon montel mooy mm. paa bi. Mm. dafa am beneen xarit bu nekk benn société man Scorpion laa nekk am benn société bu tudd Bessi ñoom ñaar ay ay vétéran la xam naa ñoo bokkoon armée ak yooyu ñu toog ñuy ataaya. Mm. quelque temps euh, oto fourgon bi taxaw si buntu kii bi. ñu dugg si na ma yaay xalifa bon sëñ Babacar Dieng ak xalifa bi. waaw ah, quoi ñoom ma yaay xalifa mu ne ko waaw. mu ne ma bon euh, kii nee na da ko génnal jam ko paaka. ma ne ko ban paaka gars yi ñoom kii commencé ñam jaa ak kii grand bi oh, fàtte naa sax turam hmm. ñu wax commencé négocier ma ne non les bàyyi leen nu ma obtempéré noonu moo tax kenn mën a tuum hmm. ma dugg ci oto bi ci fourgon bi ñu boole ma ak ASP ñaari policier yi nekk ci kanam oto bi. fourgon boobu lan lañ ay policiers lañ. policier la ak ASP. ak ASP. bi laa nekkal ci ginnaaw. Hmm. ñaari policier yi nekk ci kanam. ASP bi ñu commencé wax police ginnaaw raay waxuma nag ndax ndax ba léegi actuel commissaire bi la wala jóge na fa man kooku lijjantiwuma ko ki ma lijjanti mooy saaxo parce que saaxo bu ma ko lijjantee rek dina ma wax ban ban commissaire la woo. parce que mm. sàcc ku dul euh, bu dul rëcc jaru yàq say nelaw. maanaam mm. ñëpp ñu ci taqee dina ma ko wax. après nga dem police. léegi dégg ci yoon bi. Mm. sa waay laaj ma ASP bi laaj ma ba ma laajee ma expliqué ba si yàgg mu ne ma non li li injustice koy bañ. loolu bu la waxee rek ne ko génn ma jam ma ne ko génn ma jam bay yenn jam ba ñu wàccee benn policier bu mel ne kaña ngeen baal ma ci wax bi. mu ñëw di ñàngal ma ñëw ba si kanamam def nii gis nga boo tooñu dangay am fit comme man tey ñu ma am fit ku ma gëmul nag baax na ñu ma teg dof baal naa leen. mais comme nga dem police. ma dugg ba ma ñëwee dugg taxaw. fekk ñaari cellule la bu ginnaaw raay ginnaaw raay sud ma ñëwee y avait sept bandits parce que lu tax ma wax sept bandits ñoom ñëpp ay. ay man toxique. ay def kat lañ daal ñu dem ba may dugal foofu ñu xool ma nu ma cliner. ñu dugal ma ci benn bu vide ma leen ma leen ma leen ironiser de ma leen non bàyyi leen fii ñu ne ma non fii ngay dugg ma ironiser de ma ne ñu ne fii lay dugg quelque temps ñu ñu ñëw ne ma bon comme dimanche la inspecteur kii bi commissaire bi nekk fi da fii fiy fanaan ba suba. au de quoi Pape Maguette au nom de quoi lan laa yow Pape yow di nga nangu ñu ne la police ñëw rek ne la sëñ baabakat Dieng moo ne la da da nga ko génnal jàmm rek ñu jël takk rek yóbbu tëj ba pare da ngay xaar ba suba pour pour gisal commissaire mm-hmm. kooku. kooku kooku kooku golo la golo la ñuy def loolu mais nit dëggantaan njaay boo xam ne ñoom ba ñuy tëj gardien lañ tëj mais man mm. rappeur laa tëj te rappeur laay doon ba dee mm. je rappeur parce que lu tax ma la wax ne rappeur la rappeur bi moo tax ma mën a bind article sax journaliste. te te bi nga ñëwee ci police bi amul kenn commandant wala kenn. ku la on m'a pas gis nga lu ma doon gis ci film yëpp dara gis nga lu ñuy gis ci film yëpp dara amu ci maanaam salut sëñ Babacar Dieng noo tudd foo dëkk ak loo génn ak maam dara. billaahi wala da nga ñëw rek ñu tijji gris dugal la ñu tijji gris bi dugal ma billaahi wala taala am beneen gaañ benn policier bu tudd Thiat mhm. bon Thiat sur mon ba ma ko expliqué ma ne ko xoolal tappel tappel ci YouTube question polémique question avec S polémique avec S mu gis sama benn émission YouTube ma ne ko tappel journal de l'Intos mu gis sama émission léegi ba ma ko tourné mu xool ma xoolaat kii bi quoi mu ne non y a quelque chose am na lu lu lu lu ko raté quoi mhm. maam mënul gis Euh, euh, après nga wax naa ko ni que ñëpp xool bi quoi mënul xool euh, vidéo yu yu casé yooyu fekk waa yoo xam ne casé wul quoi mais casé boobu dañ ma war a laaj lu tax man ma dérangé wu quoi parce que déjà man instant boobu sama moo saan naa fait tour hmm. parce que je me suis dit li ma dal nii koo xam ne man ma gardien moo censé jàpp sàcc koo xam ne mooy raada sàcc sàccu sàccu Senelec di ma coffre hmm. non loolu billaahi wala taala man je me demande sax ñiy taal seen bopp sax du lool moo leen taal parce que yooyu ma lay wax noonu boo ma Pape Maguette yow boo ma mënul comprendre. Mm. kenn du ma comprendre. Mm. soo mënul comprendre loolu. Mm. parce que am na ñuy wax naan non garde à vue rek loolu dara parce que da nga jàpp ne man du ma dara. Mm-hmm. fii kenn gënu ma gënu fi kenn mais kenn gënu te ñëpp ñu ma teg dof baal naa leen ci xol bu sedd guy fu ñu taxaw nii fu ñu ko téye nii. maam samay rappeurs yi sama moroom rappeurs yëpp dan ma off sama moromu ah, ah ñu ma bokkal euh, bon kuréel du ma wax ban kuréel diine. Hmm. dan ma off. Hmm. Ah, sama moroomu euh, waa kër sax sama waa kër. am lu hmm. gën a métti. sa waa kër sax loolu la la jàppee maanaam mbedd mi sax lu ñu jàpp ñoom jàpp nañu ko mais anyway. yow la lan lañ la jàppee euh, Babacar da nga xaw a manqué. maanaam Babacar dafa xaw a dof léegi. xam lu ñu jàpp. parce que yu may def la maanaam nee naa la. su ma taxawoon. jour boobu ci biir cage bi su ma mm. doon taxaw maa ngi doon biir di yëngal comme un rappeur américain bu nekk ci cage bi mm. mais man je savais que su ma saaga deen tijji gré bi fekk ma foofu dóor ma ay livre ba ma nooy mm. te je l'ai pas fait mm-hmm. lu def ma ko oma oma oma dan ma nëbb jant bi arbitrairement mm-hmm. pourquoi pourquoi mënu euh, kii mm-hmm. pour corser sama sama cas déedéet mais li ma mënoon jëmbale yooxu def fii joolu xam te li ma ci gën a métti durant tout le kii ay ASP ñoo ma doon toppatoo ay ASP maanaam man daal dan ma jàppee benn chiffon quoi maanaam tey ji bu ma defoon sax fautif sax man je me benn policier boo xam ne moom laay fay samay taxe samay impôt mu traité am ba may génn billaahi un ASP moo jël samay empreinte digitale mais mais mais tu t'es senti maltraité tu t'es santi euh, lésé tu t'es yow da nga senti ne dañu dañu dañu dugg ci sa biir xol xam nga yàq yàq sa xel yàq sa xol daal loolu nga sentir quoi. merci beaucoup foofu dañoo xotti sama quadrante. Mhm. maanaam loolu ñu def noonu. Mhm. depuis jour boobu depuis jour boobu laa. waaw nekkatuma sénégalais depuis jour boobu respecté tuma police. billaahi wallaahi taalaay. Mhm. même couvre-feu bi nii à n'importe quelle heure laay dox te bu ma tasee ak policier policier bu ma xoolee je suis censé peur. waaw kot kot mais su ma taxawee xam nga muy jàpp ndeysaan day jàpp ne waa ji wérul wérul parce que en bu ma leen en sax xamuñu ko mm-hmm. gis nga buntu rond-point Sandaga mm-hmm. dama fay taxaw di yooxu lion def li ma neex malgré li ma neex noonu am na ñu ma jàppee dof de mais policiers yooyu am na yuy tàkk sama kaw. mais la moo tax ngay dem ba rond point Sandaga di ah, yuuxu. yow yaakaar policiers yi yuuxu. loolu eh. kañ kon bu ñu lay tuumaal ne Babacar sa xel mi daa dem kon ça veut dire que. waaw bàyyi ma ñëw Babacar xel mi newu fi. merci beaucoup. Ah. xam nga yow journaliste la. Ah. j'aime j'aimerais j'ai bien ces questions. waaw tey euh, nam si yàlla Cheikh ñas bi. Mm-hmm. benn benn benn yaafu sax la def. Mm-hmm. mooy kenn xam ko. Mm-hmm. bu fekkoon Guy Marius Sagna moo gaañ moo dee. Mhm. dëkk bi tàkk nag grand. Mhm. Sénégal moo am deux poids deux mesures. Mhm. tey ñu ngi naan Guy Marius Sagna ak moo ma ëpp nag taxawaay. waaw duma du mukk lu ma def. moo Karim Abdou Karim ak yooyu ñoom combat citoyen la mais man li ma doon def dama doon joog. dans l'exercice de ma fonction lan ma toroxal. bokkul bu ko boolee bu leen ko boolee. ñële lu ñuy xeex masse tout un masse la. te kenn waxu leen kenn yablewul ñoom ñoo autoproclamé dañuy xeex. mais man dama doon liggéey pour dundal sama njaboot. parce que heure boobu loolu ma acte boobu ma def pour pour jëlee fa ñooñu. billaay su ma nooyoon tuuti Mamadou Ba comme tel que je le connais. day ñëw ne ma sëñ Babacar Dieng yow yaa ay ñuy taxaw. yow dama la fi jëlee. et après damay ñëw naan leen eh, yéen yéen a tax ma jóge fii yéen a. taxal kon yow loolu bi muy xew yaa ngi woon ak soxna ak ay doom. aw ma soxna. aw ma dara xam nga la moo tax. parce que ku ñu jàppee ne réputation dafa crazy da lay ragal geli jantal la am jantal mel mais mais. <laughs> Eh, Babacar Babacar nga nga baal ma de. comme li ñuy wax noonu dafa crazy xel bi dafa dem dafa dof. dafa am lu traumatisé wala boog euh, yenn saa yi di nga jékki-jékki génn gaam wala sa xel mi dem wala daal. xam nga li ma la expliqué. waaw wala yow loolu noonu moo la traumatisé actuellement nii. coono dama lay wax ne la xam ne xanaa kay lu ma la wax lu dañ. waaw gis nga benn policier. Mhm. taxaw na. Mhm. ma doon rap ponti. Mhm. di rap yéen a ngi déglu rajo télévision kuntu këntër les kiis ñu dëkk ak ci xibaar yi. bisimilah ci xibaar dëgg bëccëg bi fële ca baalee ba askan bu fa yeewoo amatuñu fu ñu dëkk ndax gis nga loolu de wax naa ko ba mu jeex benn soltani nag di rap. moom mu toog il se permet policier boobu de il se permet woo central ñu woo ma pour ma coffrer. au nom de quoi te kooku xaw ma ko man ñooñu dama leen bëgg xam maanaam ñu may toroxal dama leen bëgg xam. mais na moo tax nga am problème ak waa police quoi. waaw da ngay ñoom di leen clash wala di leen wax lu tegginewul parce que gi dégg naa la nga wax léegi dem ba rond point Sandaga di zëmbalee di déconné foofu. am lu mu la foofu. di mais Babacar loolu. borom xaar xaar dama lay expliquer rek. waaw billaahi wallaahi talaay du ñëpp de am nañ ci policier yi am na ñu jàppee ne waaye dafa am problème mais dama la am na ñu may tenir tête ne ma booy jugal fii xam nga xam nga nit boo koy menacé c'est parce que jàpp jàppoo dafa dof. xaw ma ndax yàgg ngi may yow da nga leen di provoqué wala da leen jàppal en ba leen di provoqué wala. xam lenn da xam naa ko. Hmm. su ma taxawal di wax naan policier moo fi dàq sàcc. Hmm. du ma ko fekk. waaw su ma nee naan yi soo dee du ma ko fekk. boo ko saagaa doo ko fekk waa est ce que est ce que dama fay. boo dóoree doo ko fekkee waaw est ce ma jël sànni euh, oto police. mu hmm. toj pare-brise du ma ko fekk. yooyu mere naa leen lool. waaw léegi taxaw jàkkaarloo policier di zëmbale. waaw xam la ma nga xam nga tey muy patron muy keneen koo xam ne mu ngi ci kaw mm. ñoo lu ma gën a bay mm. mooy nga fecc ngay fecc ci kanam di cëlli cëlli moom dina moom dina ko leer na doo mës a ñëw ne ko facture courant ngi nii mm. facture ndox parce que du ma la may nga naan ma booy du lay joxee li parce que keroog fi yaa ngi ñëw di di ma fonto du dëgg dëgg la wala dëgg c'est dafa am technique de de de de de fayu li may def ah technique de fayu la. waaw maanaam <laughs> Babacar yaa ngi door ñëw. am danga am technique de fayu booy fayu quoi. la boo leen jàppal xam nga su ma nekkoon di saaga dañ naan waa ji wérul. nu nu ma ko mën ba tey yii nii ñu ngi lay jàppee ne wéru ah ba tey ñu la koy jàppee. xoolal wuy ma li ma lay wax ni kay. Hmm. xanaa kay leer na maanaam j'ai essayé d'être lucide gis nga li ma lay wax ni j'ai essayé d'être sax. tu essaies waa parce que dama lay wax ni sama <laughs> tey jii j'aurais j'aurais aimé. Hmm. Euh, ma toq rongañ. Hmm. ma toxorongañ mais ñëw ma fii pour pleurnicher man li ma lay wax nii mooy tant que man j'avais le choix ma toog sama bureau maa ngi sama sama rédaction ma toog sama bureau à chaque fois ñu ne Guy Marius Sagna jàpp nañ ko dugal nañ ko ci frigo mu ñëwaat mu nekk ay boucle dans ma tête ok est-ce que est-ce que sama fay comprendre traumatisme la kon non ma loolu kat nangul traumatisme la da am traumatisme dañ la traumatiser non déedéet maanaam dama am impunité impunité mbaa mais loolu moo la traumatisé traumatisé mooy loo xam ne dafa des sa biir bopp. parce que xamala ma tamal waxuma ne nag da ngaa dof de. non non xamala ma tamal traumatisé la xam fu ma ah, ah. la bu fi nekkoon. Mhm. faj na sama ronga faj na sa soxla. parce que policier bu bu fekkee policier sañ ma def ma ko boolee gendarme ah, même bu ko tëjul sax dana ko wax ko gars yi ñu teg ko ci yoon. teg ko mhm. man xam lu ma lu ma gën a métti. lu tax ma sax ngay wax traumatisé man ba may nekk xale. samay grand mën nañ seede loolu lu ñu waroon wax dana ma yow boo demoon armée inspecteur bi daan la yow bul jarul ngay sonn jël naa la hmm. mais j'ai jamais voulu parce que bañkat nga déedéet parce que jàmbaar loolu du option man rab rab laa gisoon quoi rab fii waaw euh, léegi Babacar léegi problème bi nii yëpp discuter nga ci ak say proches yi nekk sa famille xam nga déggoo ma na hmm. lu ci gën a garaaw hmm. ci guddi ga. samay samay waa Sénégal ba ñëwee dama leen wax xam sama papa dafa gaañu sama yaay dafa gaañu. mais je dama leen ñaan dama leen supplier na leen ngir yàlla yonent bi bu leen ko wax sama famille. xam nga la moo tax. bu ñëwee sax mën nañ corser sama dossier xam nga lu ñuy wax dañuy ñëw naan day bopp bee dem yaay mooy nii yaay mooy la fekk ba léegi nii àll kale gi lan waxul. maanaam ba léegi ne yow sax dama dama bañ nga perte maanaam un sàcc. billaahi wallaahi taalaay day sàcc ay fiil day gis nga pot lampadaire ginnaaw yëpp. dama laaj ku ku leen ko jaay. yaa ngi waxoon doo ko tuumaal. dama ne doo dama il nga comprendre ne. pour pour ñu mënul comprendre li may wax. Mm-hmm. nañ jàpp ne rek. Mm-hmm. un gardien moo censé jàpp kuy sàcc. mais pas sàcc jàpp gardien. mais pas sàcc jàpp lu gardien. ku mënul ku mën a comprendre jeu de mots boobu rek. Mm-hmm. mën nga comprendre sama histoire. de mots boobu dafa am ñaar yoo xam ni moom moo xew. waa ci li nga expliquer nii yëpp. sàcc. jàpp gardien bu waroon jàpp sàcc. waa deuxièmement bi nga dem police dund fa loola naqari. ñaar yooyu noonu moo ñëw. yooyu moo la naqar yi mais nag euh, dama lay wax. Hmm. du man du bu ma nee dafa dund naqari. non ma privé ma liberté. mais jox nañ ma gis nga je te am na policier yu baax ba tey. oui bien sûr. pour la preuve. am na la preuve billaay wallaay taalaay. xam nga ñoom dañ leen touché ay ay añ yooyu. Hmm. man dañ ma doon beral man sama lekk. gis nga am na benn policier boo xam ne dafa ñëw mu ne ma am dóoral lii ma ne ko non ñii nag mu ne ma waaye ñii ay waggalan dóoral lépp. soo ko mënee. Mm-hmm. kooku nekkul ko ba waaye baax la borom baax la. dama ne policier policier billaahi daf ma jox boolu lëmb ne ma boo ko mënee dóor dóor ko parce que gis na ne ñee nekkuñu si yoon bi. Mm-hmm. man ba ma ko expliquer ak keneen ki mm-hmm. ñoom comprendre nañ ma ko c'est normal maanaam c'est normal gis nga ñu ma teg dof may naa leen ko. mais li ma dund ne jugez pas man li ma dund boo ko dundul mënoo ma juger. ak ni may def pour pour maintenir sama colère boobu munoo ma juger tey jii su ma demoon nag euh, euh, buntu pale taal sama bopp xam nga ñuy génne dossier médical il ne jouissit pas de tout ça kii man expression boobu ni ma ko bañee faculté ma ko bañ ni mu gaawee bind il ne jouissit pas de ses facultés mentales fekk loo xam ne mu ngi lay shine maanaam chaque jour nga gis fourgon oto mu ngi lay gis fu yaa ngi gis fourgon oto fourgon kii chaque jour policier taxaw sa kanam gis nga benn jour dugg naa Colobane dañ taxawoon côté euh, fed kii RTS euh, aw ma oto ma dox noonu ba dugg ci marché Colobane bi ñëw policier bi arrêté ma ma xool ko mu xool ba ci suuf ana sa papier ma génn billaay xefuma man je suis sûr que lu tax tiitu ma moom moo tax mu bàyyi ma. Mhm. parce que déjà je suis si avoir peur mais mënutuma am peur. billaay ça veut looy ragal ci police. dama ko gisul sax xob la. billaay wallaay xob. kan xob la. ñoom sax. policiers yëpp laa xob ay xob laa la gis maanaam je te que ay. taalibe yu dox sax laa gën a ragal. billaahi wallaahi taala. li ma la wax nii c'est pas pour. lu ko indi parce que ma la nii ça blesse ça la moo. nangam. et toute la police nationale. Hmm. je pourrais le hmm. la. Hmm. su ma ko waxoon sax dañ naan ma booy moo réew pourtant nangul nañ ko nangul nañ ko Bougazeli. loolu noonu sax samay colère la. tey ji Cheikh Niass bi nii dana daal Bougazelli kii euh, Guy Marius bu deewoon. billaay Aly Ngouille Ndiaye mo astafurlah jom euh, Diome ñenn ñëpp kenn du féex. di leen génn lu leer nañ ci kaw table. tey jii bu ma déggee ñuy wax revue de presse ñu naan leen euh, autopsie bi tey leen koy xam quelle lenteur administrative. quelle lenteur c'est que dama lu maas maas rappeur lu mu wax ci postom dama ko gëm parce que policiers yi dafa am yenn zone yu ñuy agiré lu mu leen neexee mais ay point ay almadi non kenn du fa mal ma malmené ay ay citoyen mais ñoom ñoom ban may tëj dañ yaakaar ne peut-être côté boobu laa dëkk man kaso laa ju wax waxuma ay kii de bëgguma ay clivage ne damay xeeb waa ginnaaw raay de ah, non xam naa mais man kaso laa jóge nekk boy town mm. da nga nekk boy town ñu tuddee ma rek rappeur ñu tuddee ma le successeur de Dip Doundou gis loolu bu ba paree dama lay jox ay kii parce que yooyu yëpp day day nekkaat ci biir commentaire. mais instant yii nii léegi léegi lan ngay def nii actuellement. maa ngi ci benn rédaction. Mhm. journaliste. Mhm. maa ngi def rédaction léegi man j'avais le choix. Mhm. toog. di toog di di explosé di explo di di di fuur di fuur ba benn jour ma explosé. nga explosé ñi ñu naan nag wax dëgg réellement ñu ngi doon laam naamee dof nag doful mais moom bii moom <laughs> euh, diplôme baa ngi nii. wala man ma ñëw wax lii. Mm. li may wax ni je te jure que. billaahi wallaahi taalaahi su fekkee ne yokk naa ci wàññi naa ci. Mm-hmm. yàlla bu ma am. mais mais wax ji nii nii nga wax nii wax ji nii nga wax nii foog naa ne tey nga am opportunité. pour génne lii yëpp dafa lu mu la def da lay soulager wala. waaw dafay soulager dafay wàññi si yow lu bëri wala. am am na mooy soulager. waaw gis nga euh, comme lay wax ba mu ne carrément policier bi da ko bëmax ba mm. boole kaak ASP ba pare ñu mm. dem na ba def dérapage bu ndaw dafa ne moom mu doon ñaan bu jëlee pouvoir bi mu fexal commissaire bi. waaw na ko ñoom eh, seet ñoom Sall na ko. Eh, eh, mm. Sall ñoom xam na lu mu wax ne loolu du dëgg du yoon mais même man mi kenn xamul lu ma nar kenn xamul lu ma lu ma bëgg mais comme man gëm naa yàlla gis nga li ma li ngay wax ni soulagement benn total mais j'aimerais que justice soit faite sur ce dossier def nga bind nga plainte déedéet aw ma aw ma di man je suis mal barré maanaam tey jii sama famille bu waroon taxaw si man amul kenn ba ma leen ko waxee noonu la ci yemee ba mu ñëwee le lendemain ñëw famille bi ñëw ne leen dañ ma tëjoon police billaay dafa mel ne genre dama leen wax ne leen <laughs> wàcc naa wala je sais pas quoi. maanaam lu la wax ah, ah, mais dama leen wax ne leen man dinaa fay tôt ou tard. Hmm. Magu Dieng ak Binna mën na ma seede. Hmm. Mor Fall sama rakk mën na ma seede. Hmm. mais ñooñu ñëpp je regrette sax que wax naa ko dund ak nag di fuur. di def ay manigance mais ba léegi ils m'ont pas posé la bonne question. mais fuur bi instant yii dina mën a wàññi. comme xam nga lan moo tax ma bàyyi ma bàyyi waaw. parce que presse. dafa ne éthique ak déontologie mënu la may yow war la may sax nga jël dof. man xam naa ko parce que journaliste la. waaw gisee boo essayé gis nga. mais su ma toogee dof naa ko mën a canaliser nag de. waaw yi. waaw léegi léegi kay léegi kay alhamdulilah kon nag dugg nga ci nag danga may may setal wala nga tilimal waaw léegi kay loolu moom yaa ko léegi man je te donne la latitude dama dire. que je suis zen ou wala wala xaw a zen wala zen zen. yaa xam ngay bàyyi euh, internet ñuy jugé. non non c'est man instant yi man du la jugé man. si si waxtaan bi rek laa nekk. waaw mais li ma la bëgg wax ne la. je défie hmm. na ñëpp dem Fass Thiaré. waaw si Senelec bi ngeen leen peut-être du leen wax nu mu demee. Hmm. mais juste li may wax ni am na. Hmm. maanaam euh, Aata Diallo euh, Cheikh Ahmed Tidiane Diallo major la. waa gendarmerie Samba Diéry Diallo xam nañ ko. tàngooram. xam nañ ko. boo demee ne leen waa Gros Bras waa waa Dakar dem te ñëwuñu woon raxas foofu ba defaraat ko latérite ba mu naaj. Mm. yàlla ko confirmé. Mm. yeneen yi nag détail la parce que déjà man euh, man wax nañ ma ko nee naa ma góor pour góor bëgg ma moom dafa jafe parce que man gisuma lu ma ñii góor. Mm-hmm. jaajëf euh, euh, sëriñ Babacar Dieng. waaw ñu ngi lay jaajëf xam naa dañuy def foofu noonu. waaw virgule. waaw après waxtaan bi incha allah rabi danañu ko continuer waat si jëmmi jamono. waaw mais dama bëggoon. waaw fu daane rek. ku ma bëgg contacter man yoruma numéro service fu may liggéey la man ah. comme ni ma la ko waxee journaliste la hmm. numéro bu ma yor su ma ko joxee dana beneen numéro parce que ñun ñun liggéey yëpp ñoo bokk même numéro yi ñoo nduroo quoi et bu ma ko defee damay tooñ parce que laajuma aval parce que loolu c'est d'ordre professionnel pas personnel li may def nii c'est personnel hmm. donc je me retiens à ça mais ku ma bëgg a contacter na ma contacter sama mail Dieng Serigne Babacar arobase gmail point com wala maa ñaan mu euh, kii euh, ngeen ngeen contacter Pape Pape Maguette Ba mu wax yow kay joxe nga sa Gmail jarutul ñu may contact. déedéet non non maanaam li ma la wax nii. <laughs> waaw tous les moyens rek dama la bëgg wax ne la ah pourquoi man sama numéro personnel. waaw war naa dama lay foofu rek lay daalele. Mm-hmm. dama am benn copain bu tudd Bilal. Mm-hmm. nekk Sandaga. Bilal day jaay ay téléphone mm-hmm. mais copain këzam laa jox sama téléphone billaahi wallaahi taala. sama iPhone laa ko jox ne ko chargé ko ñëwaat mu ne ma réer na. ah jàppal bàyyi jàppal bàyyi yow koo war a koo war a dama lay laaj koo war a yóbbu euh, plainte foo koy yóbbu. <laughs> police. boo meree police foo fooy demee. xam waaw yow loolu yëpp nga denc na ko nag nga denc ko ay ay frustration yëpp denc ko tamit boo boo leen man dof laa boo leen ko considéré comme dof dama leen koy nangul. mais man dama la bëgg wax ne la. danga maa tooñ. ndax ku ku tooñ nag. leer na sa plainte ñëw na Sénégal. soxla juge maa ngi ñaan. Mm. sama sama question mooy képp bépp journaliste bépp gardien bépp sénégalais boo xam ne dund nga injustice. nu mu mënti demee dafa war a jeex Sénégal policiers yi dañoo war a respecté man dama respecté woon policier mais respect boobu du mën a am tant que lii awma ci gain de cause maanaam lii may wax ni Ablaye Wade jarbaata Ablaye Wade boobu dama ne ko bu fekkee ne jarbaata Ablaye Wade boobu moo moo nommé commissaire boobu wala ak noo ko mën a usé ba mu jël si ma ma xam ne dootuma dootul woo kenn. waa waaw jërëjëf sëñ Babacar Dieng xam naa dinañ amaat beneen jotaay ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. di jaajëfal Seydina bu nekkoon ci technique bi mbokk yi à vous de juger seetaan leen déglu leen li mu wax injustice bi mu dund ak tamit la ñuy wax ci moom xel mi daa dem wala demul c'est à vous de juger boo leen seetaanee jaa ngeen jëf.